jeunesse, il faut rester vigilant ndaxte ñoom sàcc rek moo leen dese. xam ne Macky Sall xam na ni Sénégalais yi bàyyi nañ ko te loolu dañ ko bëgg a wot euh, wone à travers les urnes kon nag bu ñu nangu kenn confisqué. victoire bi nga xam ni président Idrissa Seck yàlla dina ko ko jox incha allah le Il faudra vous organiser. Il faudra être déterminé. Il faudra être engagé. C'est vous, la jeunesse, qui devez faire respecter le suffrage et la volonté des Sénégalais.